Assalamualaikum. En ma qualité de président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, je vais peut-être euh, <clears throat> m'arroger le droit de faire un point de presse dans le point de presse. ay ay ndaw ngeen ay ndaw ñoo ñuy déglu. léegi léegi dafay baax ñu xamal leen yenn yi pour que ñu mën koo gànnaayoo ëllëg bien ko mënuñu wax lépp je parle de moi-même d'abord man dama am ci yeewu askan wi ñaari problème te ñaari problème yooyu du kenn. lu may Khalifa Sall ak usmaan Sonko daa leen expliqué ñi yëpp des samay rakk yu baax ma wax leen cër bi ñu ma jox ba décidé def ma président Yewwi Askan Wi parce que bi ma ciy dugg ci Yewwi Askan Wi ci xalifa Sall ak Ousmane Sonko la jaar xalifa li ñu lee dafa dafa bëri dafa yàgg parce que 1994 1995 de 1998 man maa doon directeur de cabinet du ministre d'État Abdoulaye Wade bu mu nekkee président ministre d'État auprès du président de la République dans le gouvernement élargi d'Abdou Diouf j'étais le seul énarque au Sénégal le seul la wax du benn du ñaar je suis commissaire aux enquêtes économiques qui osait militer dans l'opposition amuloon ñu naan Habib Sy dafa dof ak lu nekk ñu wax ko mais c'était ma conviction et dans mon fief à Linguère je m'opposais au puissant Daouda Sow au puissant Djibo Ka vous les alors bi ñu génnee ci gouvernement Abdou Diouf waa gouvernement am kenn du laal Habib Sy pestiféré et comme man je cadre du ministère du commerce Khalifa Sall était ministre du commerce il a finalement accepté de me prendre dans son cabinet comme conseiller de département ma lay wax lu tax ma jàpp ko mais xalifa bi ma jëlee def ma conseiller dafa ma daan jël ñuy ànd di voyager négociation commerciale et tout fu ñu dem mu ne kii day opposant la maa moom bokkuñu parti mais mooy sama conseiller technique il n'a jamais jamais jamais alors essayé une seule fois ni ci acte ni ci parole jéem ma convaincre pour ma ñëw parti socialiste ma jàpp ne kooku gor la démocrate la parce que amul kenn koo xam ne kii ci parti socialist mos nga du def lu mel noonu bi ñuy sos Yewwi Askan Wi compte de nos relations il ma venu voir pour ma bokk mënuma ko bañal j'ai accepté damay gàttal rek Ousmane Sonko sama rakk la bi nga xamee ne Macky Sall da koo dàq ci inspection inspecteur impôt et domaine ma woo ko ne ko Ousmane dama bëgg affaire bi mu nekk affaire énarque parce que lii mu dara musu fi musu fi am lu mel nii un énarque qu'on décide comme ça de radier de la fonction publique c'est injuste il faut que ça soit le problème de tous les énarques impôts domaine douane trésor commissaire aux économique économiques administrateur civil inspecteur du travail il faut que tout le monde s'implique et qu'on aille voir le président Macky Sall pour qu'il revienne sur sa décision Ousmane me dit c'est bien Habib mais je suis pas demandeur mais bu fekkee am na loo ci mën a dox nga dox ko j'ai essayé avec deux trois amicales j'ai constaté que ça ne marchait pas et je lui compte ñu yem foofu ñuy dox di dox ci gàttal ba mu ñëw moom ak ñoom Khalifa ñoom Cheikh Tidiane Youm ñu décidé créer Yewwi Askan Wi Ousmane est aussi venu me voir bi mu ñëwee mu ne ma doyen dama bëgg nga ñëw nekkal ñu suñu Amath Dansokho Amath Dansokho ma ah Ousmane mii li mu wax rëy na di yaakaar ji rëy na de mais mënuma koo bañal ma ne kon am na yaakaar ci man ju tol nii wax ba mel nii bés ni ki tey sama waa parti ngi fi waxuma leen ko mais boobu laa rey sama parti defatuma réunion parti convoqué wu ma waxuma au nom du parti te pourtant li gars yi def ci parti yi mën naa ko parce que maa leen ci jiitu mais je me suis dit yaakaar bu toll noonu ay jeunes buñ demee ba wekk ko sa kaw yow li la war mooy li nga jàppoon muy sa intérêt bopp nga bàyyi ko consacré pour l'intérêt général et ils m'ont ils me l'ont rendu ñoom ñëpp sans exception Khadi est là. Les, gens de mon parti me critiquent toujours, ils m'appellent dans réunion, etc. Je dis non, je ne fais pas. Et je leur ai jamais dit la raison pour laquelle je ne Voilà, Khadi, je, je te l'explique aujourd'hui. ñuy dox ba Khalifa <laughs> qui était le président de Yewwi Askan Wi il faut ngeen xam Khalifa Sall m'a poursuivi pendant deux mois pour ma jël la présidence de Yewwi Askan Wi j'ai refusé mais après ñu sot ma ñoom ak Déthié ay Dembooñ ak Maïmouna et cetera parce que depuis que Ousmane Sonko m'a dit cela et mes liens avec Khalifa j'ai dit man bëggatuma nekk candidat président de la République soxlawuma ko rien ne m'est étranger là-bas bëgguma nekk député kii moo ma forcé pour ma dugg ci liste député yi soxlawuma premier ministre soxlawuma ministre et di même bu ngeen accéder au pouvoir je fasse mon jubilé politique parce que la configuration politique sociologique du Sénégal a changé qu'il y a de jeunes que je donne l'impression d'un vieux alors que je n'ai que 67 ans. À cause, ne, Je pouvais faire comme tout le monde. Mais gor buñ la waxee yenn yi il faut nga matale ko ba mu ba mu àgg foofu alors ñii ils sont ils m'ont sont témoins F24 bañ koy dox mais ils m'ont proposé ñu ngi ni pour que moi je coordonne F24 j'ai dit non je ne coordonne pas les témoins sont là je me consacre à Yewwi Askan Wi parce que gor yi ma ko seqal ñoom dékkee wax ne du am ak cër bi ñu ma jox jamais au grand jamais je veux symboliser Yewwi Askan Wi et je me battrai de toutes mes forces pour que Yewwi Askan Wi demeure cette famille dont on a parlé alors parce que nit ñi dañuy bëgg a xam ñu dem bërki démb rencontrer Macky Sall cetera bon je veux pas mais vous avez besoin de savoir vous avez besoin de savoir je vous le dis <laughs> pour savoir euh, je crois que xali euh, matul matul 3 minutes suñu gisee ak Macky man ñii ñoo ma yónni Yewwi Askan Wi je le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi le maire Barthélémy Diaz a écrit pour inviter le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi j'ai demandé l'autorisation de la conférence de Yewwi Askan Wi ñu ne ma demal toogal demal toogal ñu fa ma dem toog fa et comme cela se passe d'habitude le président de la république moom moo ko waroon a présider et mais on s'est rencontré là-bas il a exprimé le désir de nous rencontrer ça n'a pas fait plus de trois minutes lañ fa wax mën naa leen ko wax c'est pas un secret c'est pas un secret Macky Sall salle de ma eh, Habib mon grand frère tu m'as tomber ma ne ko Mbaye président seetal yu li nga wax yow kay yow yaa ma yaa ma laissé tomber mais dafa ma tagg mu ne ma Habib tous les anciens du PDS yi génn yëpp ndax na fa Abdoulaye ñëw nañ ànd ak man ba mu des yow ma ne ko mënul am c'est pas possible c'est par la suite laa ko wax ne ko Habib si bi nga xamoon c'est le même qui demeure Habib Sy rien n'a changé parce que on se connaît man ak moom man ma jàpp ne man li ma xamee sama bopp parce que dama wax soo Sonko Ousmane ne ma Habib bul sonn man ni ma la xamee di la approché di wax ak yow mais public bi xamee wuñ la noonu ba mën la woolu noonu kon bu ñu gisee nga serré la mais Macky Sall l'opinion publique a le droit d'interpréter <laughs> ma ne ko nag bon ça c'est vrai mais il faut que les gens comprennent que man su ma fanaanee ci lal ak Macky Sall ñu yeewu ndékki doo ensemble añandoo reerandoo ensemble il faut pas changer mes convictions te xam na ko kan ngeen gis kan ngeen gis ci ministre Ablaye Wade yi nekkoon fii ànd ak moom 1974 ba léegi ku nekk dans l'opposition si ce n'est pas si ce n'est Habib Sy man donc du kenn du ñaar alors yooyu dama leen koy wax pour ngeen xam les jeunes et la presse pour bu ngeen wax ngeen xam il faut la source pour pouvoir interpréter parce que comme il l'ont dit Yewwi Askan Wi kenn mënu ko détruire c'est Cheikh Tidiane Youm qui dit que <laughs> c'est un peu mystique même <laughs> parce que lui c'est un cheikh alors et, et, là vraiment je profite de l'occasion comme on m'a donné la parole pour ngeen xam ne le combat d'Ousmane Sonko c'est le combat de Yewwi Askan Wi le combat de Pastef c'est le combat de Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko est de nous on continuera à le soutenir on continuera à mener le combat on continuera à en faire de faire en sorte que qu'il candidat parce que Macky Sall n'a pas le droit d'éliminer des adversaires politiques c'est un combat qu'il ne peut pas gagner c'est impossible vous ne pouvez pas éliminer Khalifa Sall éliminer Ousmane Sonko éliminer Karim Wade et vous présenter seul à l'élection présidentielle à quoi cela ressemblerait c'est impossible te peuple bi duñ ko nangu alors il faudrait donc qu'il revienne à la raison mu xam li mën a am ak li nga xam ne mënul am ñi yaakaar ne les crises là tout ça c'est tout à fait normal hein qu'il y ait des divergences parfois même dans les partis dans les familles ça existe il faut qu'il y ait des divergences dans Yewwi Askan Wi mais aujourd'hui le fait que nous soyons, soyons là ensemble prouve que nous sommes une famille unie solidaire unie solidaire ak lu mën a xew incha allah Yewwi Askan Wi va continuer alors Je voudrais en profiter pour parler un peu à nos magistrats. Je leur parle pas, je leur parle de, je vais leur parler un peu de Rome, parce qu'ils appliquent un droit romain, gréco-romain. Euh, je ne parle pas de, de Moussaka ou de, euh, d'autres philosophes. Vous connaissez le philosophe Platon. Platon, il dit, il a, il, il, il a, a, a fait une constitution. Il dit, que la cité doit être dirigée par les magistrats, les philosophes. C'est ce qu'il appelle les philosophes rois. À ces gens qui doivent diriger, il leur attribue une vertu. C'est l'intelligence. L'intelligence. Il dit il y a une deuxième catégorie. Ce sont les guerriers, ceux qui défendent la République, les soldats. Il leur attribue une autre vertu qui est le courage. Et ensuite vient la, la troisième catégorie qui est constituée par les producteurs, les artisans, les agriculteurs. Il leur attribue la modération. Mais il dit qu'il y a une vertu commune que doivent partager toutes ces catégories c'est la justice. Parce que c'est la justice qui est le lien social entre les trois catégories. Et quand la justice est mal rendue ou n'est pas partagée par les catégories, il y a une scission de la société, de ce qui dirige. Et je crois que je rappelle tout simplement aux magistrats, je sais qu'ils le savent, il devrait de temps en temps se référer à ces grands penseurs. Parce que quand il y a une rupture dans la façon dont la justice est rendue, ça crée une dissension sociale. On ne sait pas est -ce que ce, où est-ce que ça va nous mener. On ne sait pas. Parce que quand même, Ousmane Sonko, ce n'est pas n'importe qui. ils représentent une frange très importante de la société sénégalaise. Le président Abdou Diouf, il était intelligent, lui. Et c'est pour le président Ouad en 1988, comprenant qu'il y a une scission sociale, rapidement, il l'a parce que ça ne peut pas tenir, c'est impossible. Depuis Senghor, depuis 1960, Macky Sall est le seul président de la République du Sénégal qui écarte des candidats potentiels. Ça, ça ne peut pas continuer. C'est impossible. Donc, nous en appelons à la raison de ce qui nous gouverne et demandons vraiment à tous les militants, sympathisants, de se mobiliser pour les, le plan d'action dont on a à dire que le, le 12, avec euh, F24, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, la F24 le 24, j'en sais absolument rien. F24 et, et et le 19 euh, qui organisation, une manifestation de Yewwi Askan Wi mais on ne s'arrêtera pas à ça hein n'est-ce pas Déthié on va dérouler progressivement un plan d'action pour que Ousmane Sonko soit candidat pour que Khalifa Sall soit candidat et que Karim Wade soit candidat qu'on libère les détenus politiques ce sont des détenus politiques il n'y a pas d'autre appellation possible les Diomaye les députés Mastata, Mamadou Niang qui sont arrêtés, ce sont des détenus politiques. Qu'on libère les journalistes. On les journalistes. C'est incompréhensible. Si vous ne pouvez plus exercer le droit de, de la liberté de presse, c'est le plus grand recul démocratique qu'un pays peut connaître. Papa qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a dit Rien de grave. Les autres, la même chose. alors et je crois que j'en appelle aux journalistes je sais pas je ne, je ne sais pas de comme on dit de vous amadouer etc mais accepter qu'il arrive des moments dans l'histoire d'un pays où les combats se confondent et quand les combats se confondent les actions doivent se confondre parce que nous tous lisons tous nous luttons tous pour qu'il y ait un, un démocratie, une démocratie ancrée définitivement dans ce Sénégal. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie que des journalistes sont arrêtés. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie que des hommes politiques sont arrêtés. Alors, dans ces conditions, il faut absolument qu'il y ait une convergence. Ça ne en cause votre indépendance en tant de presse. Mais il y a des principes que nous partageons, des valeurs que nous partageons. Il faut que quand nous menons des combats pour la défense de ces valeurs, de ces vertus, de ces principes, que nous puissions à un certain moment le faire ensemble. Mais c'est à vous d'apprécier. Nous, on vous dit tout simplement les réalités, ce qui se passe, et on vous laisse toute votre indépendance, mais nous avons le devoir et l'obligation d'attirer votre attention. Voilà en résumé, moi, ce que je voulais dire. Euh, et je crois qu'il y a... Qui ça Voilà, et on vous remercie. Voilà.